kàddu yoo xam ne maa bàyyi ko jéem ji di safaan moom sëñ Mourou Moussa di ko si sa njaay mbeng di kàddu yoo xam ne moom bàyyi ji sëñ Mourou Moussa di si moom sëñ Mourou Mbenn ndigal yi ci wéral leen wéral si yéen yi yi baax ñëpp. mu wax nag moom jënd seen seen seen xarit bi jënd seen tubaab seen ndax am wax joxe ndigal nag jox serfal gépp nag dafa bëggoon nag su naagee ci ci weer yu nekk hm, marché bi yeewoon ci gaar ba ndi ko ci bëgg la fan lépp dindi ko nag def ko fi barab ban bëgg la nag wax waaye la fa ne lépp daan la jóg rek loolu digal waate seer waate seer la digal te lu mu digal seer lu suñ tubaab bokk ci rek loolu am muy ndigal ñay ci fenn nag bàyyi ci ñenn ci loolu ndigal moom ndigal lu yaatu loo euh, xam ne comme rek soo neexee bokk ci ndigal suñ tubaab lii ndax fàttali ko lay doon bu yaatu fàttali ko doon bu yàgg fàttali ko doon doon bu mat sëkk ndax ah, rek loolu topp li fi àdduna ngi nekk ah, ndigal loolu du fay